waa ca jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen site bi di wasaare amaat nañu mbégte ak kontante jàkkaarloowaat ak yéen comme ça su nekk nu ñu koy defee euh, tey nag li ñu yëkkati mooy xew-xew bi nga xam ne xew na fale sa Pout Dagné bu Noto nekk foofu sa diwaanu Thiès mooy nag xew bu rëy boobu nga xamante ne ni benn ki géwél moo fa gaañu fan yi ñu génn géer yi nag xaw na géwél boobu kenn du ko suul ci seen i ay armeel ñun nag comme xew-xew bu amee dañuy préféré wàcc si terrain bi gisee askan bi daal di leen taalal suñu micro ñoom tamit ñu wax ci seen xalaat ndax kat dama koy koy faral di wax seen mbégte mooy suñu yite ba tax luy xew dañuy bëgg rek wàcc ci bi ndax yéen tamit da ngeen ci am xalaat yoo xamante ne ni war ngeen koo wax dinañ gisee nag ak suñu papa yi ak suñu yaay yi nga xam ne fekkee nañu démb fekkee tey ndax armée lu géwél am na armée lu am na wala armée lu law beeg séeréer am na ñoom tamit dinañu si wax lépp loo xamante ne ni xam nañu ko ndax dama koy faral di wax saa su nekk ñun waa Wassare seen mbégte mooy suñu yite ba lépp li ngeen bëgg rek dañ ci xar suñu tànku tubéy xale sama caméraman bi bu baaxee rek ma daal dugg si mbedd Ndakaaru yi gisee yaabo yi ak papa yi daal leen taalal sama micro laaj leen ci xew-xew boobu ba xam ñoom lan lañ ci xam ak naka lañu ko gisee. asalaamaaleykum yaabo yi nuyu naa la. naa la. yaa ngi ci jàmm. ci jàmm oui. tur bi nan la. Daba Diallo. ma daba tey ñuy waxtaanee li nga xam ne moo xew pour dag ne benn géwel bu fa euh, gaañu woon fan yu ñu génn géer yi taxaw ne géwel bi kenn du ko suul ci seeni armeel da nga gisee loolu. waaye loolu dafa jaaduwul ndax armeelu géwél amul ak armeelu baadoo la tey jii boo demee bàkk ya tey jii kenn xamul ni kii am na kii xamul am kii xam kii xam amul na yaa may dégg loolu moo fi war a jóge damaa yaakaar ne tey jii boo nekkee jullit rek ñépp benn lan boo ne jullit rek ñépp benn lan armeelu géwal amul armeelu baadoola amul armeelu ko am amul damaa yaakaar na ñun ñëpp ñoo bokk ci yàlla waaw loolu lan fi war a jëlee waaw ndax man damaa yore samay njaboot tey ndax xawma tey nu ñuy jee ëllëg waaye man suma sañoon moom ñu dindi ci loolu ñëpp nekk benn waaw. est xeet yi bu continuer mënul indi fitna ci réew mi. non non da koy indi ndax fi mu nekk nii xeebaate moo warut a am ndax tey kii am na dërëm kii am na million damay jël tey ko am million yooyu may ko sama doom loolu moo fi nekkul waaw. damaa yaakaar tey ku amul tey nga mën a war a gën a mën war a gën a mën a jàppale waaw ku amul nga war a mën a gën a jàppale waaw ndax ñun sunuy temps ñun xamuñu woon loolu sunuy temps luñ la may rek loolu lan la may sa war wargar waaw fi mu nekk ne appartement yi sonal na nit ñi ndax tey ji da gis koo xamante ne tey xamoo ko guddi xamoo ko bëccëg nga yëkkati sa doom may mu dugal ko appartement fi mu nekk appartement yi nit ñi jong ñoo si dee ah ndax li tax nit ñi dafa dee tey boo wéetee yàgg sa jëkkër tey nga am moom problème dina la dóor ba nga dee te kenn du la atte tey wax li nga xamante ni mooy nguur gi balaa affaire bi di ëpp ay loxo. loolu daal fi mu nekk nii képp koo xamante ne toog na na nga dindi loolu waaye fi mu nekk ni ku toog sa bopp nga toogal ku fi nekk sa bopp nga fi nekkal dan lay wooteel ba nga ñëw buñ la wootelee ba nga ñëw il yee nga war a dindi loo xamante ni yooyu noonu affaire xeebaate yooyu moo fi nekk waaye da ngay woote jëmale sa bopp waaw yooyu lañ fi war a dindi waaw. merci beaucoup waaw jërëjëf waay. salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. fay naa la maa ngi lay fay bu baax. maa ngi ci tur bi naan la. man alhamdulilah tur bi booga tey ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy xew fale sa pour dag ne eh, géwél benn géwél bu fa gaañu fan yu ñu génn géer ñi taxaw ne géwél boobu kenn du ko suul ci seeni i armeel naka nga gisee loolu ah moom man ni ko gisee njuumte rek la ko gisee njuumte la njuumte bu mag sax parce que doomu aadama moom fu mu dee war nañ ko war nañ ko denc dencin bu rafet comme comme julli la rek war nañ ko denc dencin bu rafet loolu moo gën a baax lu ci des nag bu dee am na ay rëq-rëq yu am seen diggante foofu ñoom après ñu mun nañu woowante régler ko man delloo noonu la ko gisee waaw. mais naka nga xalaat noonu la ndax histoire boobu bu continuer mënul indi fitna ci réew histoire bi moom normalement warul continuer comme am nañu ay borom xam-xam ñu xam ne ci wàllu diine xam ñu nu muy demee am nañu aussi ci wàllu tubaab bi nu muy demee loolu yaakaar naa rek dinañ ko régler du war a sori quoi du war a sori yaakaar naa ko quoi. Mhm. tey gi lan nga leen di conseiller ndax balaa euh, béy di wéy mbuus. nguur gi li ma leen di conseiller tamit ñoom seen seen seen côté. nañ ci def lu ñu war a def wax ci lu ñu war a wax suñu njiit ji julli jullit yi mag yi imaam yeeg yooyu ñooñu nañ ci wax nañ ci wax lu ñu war a wax nañ ci def lu ñu war a def loolu mooy yoon. Mhm. d'accord merci beaucoup. ok jërëjëf. a papa nuyu naa la. waaw maa ngi fi rek maa ngi lay. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax a baax. tur bi nan la. man la Chérif Sène laa tudd. tey eh, papa ñuy li nga xamante ne ni moo xew fële sa eh, nga xamante ne ni gaañu na fa fan yi ñu génn eh, léegi nag askan ba taxaw ne kenn du lépp fa parce que géwél la naka nga gisee loolu. ah loolu de wax dëgg yàlla man lu ma bu fekkee ne noonu la demee moom man loolu lu ma ñaawlu la parce que loolu man moom man ci communauté boobu laa dëkk. bu Nooto Jobaas ñun du waa Sànge la ñu. mais loolu ñun am nañu ay géwélu juddu am nañu foofu parce que affaire cosaan la rek. yoo xamoo ne amoon na fa ci ay jamono eh, armeelu géwél ya armeelu kii ya dafa am bu fekkee ne ñooñu peut-être xëy na ñooñu parce que am na yoo xam ne dañ koy wax te xamuñu histoire dëkk ba donc loolu nag bu fa amee am na source yoo xamoon yooyu lu fa am la mais gén nouvelle génération yi gëmuñu lool loolu daanaka boo seetee jógee na fa peut-être nag am na fa yuñ fa das yoo xamoon ne ñu ko fay keel ba léegi ndax ñun am nañu ay géwélu juddu mais terewul ñun dañoo dëkk ñoom am benn coin coin bi habitation boo xam ne vraiment lu rafet la daanañ nañ dem sax benn duñ duñ duñu takk ci ñoom ak nu mënta demee kenn du fa jël jabar yooyu moom lu fa amoon la ci ci jamono yooyu mais nag man lu ma euh, euh, rafetluwul la parce que ñun ay jullit lañu te euh, alxuraan loolu moom ba ba mu wàcc see la dàq yooyu yëpp kon ñun comme ñun dañoo tënku te ñu gëm li ñu tënku dañoo war a dox ci li nga xam ne moom la ñu gëm ca ci ci loolu lañ tënku loolu amatul ça n'existe plus armeeru jullit amul armeeru catholique moo am ak armeeru musulman moo am loolu moom mooy li nga xam moo moo xam moo am loolu nag moom wax dëgg yàlla lu ma lu ma rafetlu ma ko ñaawlu naa ko trop c'est parce que ci sama communauté la laa ko déggee nekk na loo xam ne vraiment wax dëgg yàlla ma rafetlu ma ko loolu daal la ci am ci lu ma ciy wax. est loolu bu continuer du est-ce que xalaatoo ne di mën na indi fitna ci réew mi. mais bien sûr dafay da indi parce que yooyu c'est des choses yoo xamoo ne bu ñu ñun war ñoo bu ñuy avancer dañuy avancer mais war ñu di dellu ginnaaw. te lool nag ni ma ko déggee nag ak nu ma ko gisee mooy parce que dañuy dellu ginnaaw avancé tuñu mais ñu ngi dellu ginnaaw loolu nag mooy li noonu daal laa ko gise loolu wax dëgg yàlla moom rafetlu moo ko daal parce que man gëwuma loolu. gëwuma loolu parce que man dund ma loo ko dund ma ko gëm dund ma affaire yooyu parce que man loolu man maa ngi ci jël guerre la mais dama jaxasoo ay ay géwél dama jaxasoo ñoom kon loolu nekk lu muy mën a gëm te du ma ko rafetlu wax dëgg yàlla. te lan ngay wax nguur gi a affaire bi di ëpp loxo. non mais nañ dem rek waxtaan ak communauté villageoise parce que ka nga xamee ne mooy responsable village ba fa nekk bu ñu demee waxtaan danañ dundante ko man loolu lu ma leer la. parce que bu fekkee ne côté ay séeréer saafeen la kon na ma ni mu ko déggee ñoom yooyu moom pour ñu régler ko du dara parce que man village boobu kii côté man xam naa ko ci san boobu ma dégg ne sax fa lañ ko suul man jànge naa fa jànge naa fa waaw xam naa kër géwél yi ya nekk foofu man xam naa foofu nuñ kii mais yooyu ay affaire la yoo xam ne dañ ko gëmoon rek yoo xamoon ne yii comme am nañ fa tamit armée yoo xamante tamit dañ ñoo daan wax fii armée ru géwél yi la fee armée ru kii parce que loolu cosaan moo daan indi loolu rek mais yooyu jóge na fa ñu suñu géwél yu judd duñ ñëwoon dañ daan toog ci buntu kër ga wala taw ci taw ci diggu kër ga fa la ñuy toog fa ñuy toog fa lay leen lépp di fekk mos ñoo fan bay dara ba dara bu su faa ñor te loo xamoon ne bu ñu ñëw taxaw yi indi luñ leen seen wàll dañ leen joxoon cër parce que géwél parce que wala say juróom-ñaari maam yoo xamoon sa indi la sa histoire xam ne xamoon kon donc ñoom am nañ cër ci ñun ñun am am ci ñoom dañ leen war a jox seen gëdd parce que ñoo ñuy xamal démb kon nag ñoom war nañu am fu bëri yenn bët yu ñu leen xoolee lu du loolu surtout nag ci wàllu bu ñu demee ba ci wàllu jullit tamit loolu tamit dafay ñëwaat loolu histoire la boo xam ne ça date ci jamono yu yàgg la mooy ñëw ba léegi waaye nag am na kantaa nag parce que affaire u dee mbiru yàlla te lu sérieux la te ñun comme ñun yëpp dañuy delluwaat ci yàlla war nañoo xam bu lu ñu dee wax wala bu ñuy def loo xam ne dañuy xalaat bu ñu delloo suñuy bagages yi yooyu ñu mu mbañ a am am ay ay gàkk-gàkk loolu booy li nga xam ne daal moom laa ci mën a wax. jërëjëf papa jërëjëf yéen jëf. salaamaaleykum papa naa la. maaleykum salaam wa rahmatullah di leen sant di rafetlu seen teewaay ci garage bi. li ngeen di def ci réew mi rafet na ndax lii bëggoon nañ ko bu yàgg ci réew mi te mënuñu ko am. wasaare FM na comme que yàlla indi na ko. yàlla na tëddee njaaxaanaay te raw chaîne yi fi jiitu ci barke sëñ Mountakha. tey ñuy waxtaanee li nga xam ne moo xew fële ca Pour Dagné nekk si diwaanu Thiès benn géwél bu fa gaañu fan yi ñu génn géer yi taxaw ne kenn du suul géwél boobu ci seeni i armeel naka nga gisee loolu. waaw dama ne yàlla bu muy bind doomu aadama de yaakaar naa aadama awa daal yaakaar naa géer ak tëgg ak géwél amuñu fa place armeelu géer fan la amee armeelu buur fan la amee armeel armeel rek la suuf ci suufu yàlla la doomu aadama ci suuf lañ ko mooñi suuf lay dellu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kii dem yàlla ko yàlla yërëm te yéexeñu te yéen ñii wasaare FM ñu ngi leen di ñaanal yàlla wasaare TV ñu ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla may li ngeen dem ju ngi koy rafetlu bu baax baax man mi saa de maa ngi kontaan ci yéen bu baax a baax a baax. papa est que histoire boobu maanaam histoire xeebaate si xeet yooyu bu continuer mënul indi fitna ci réew mi. yàlla mu bind doomu aadama de doomu aadama la gën a fonk. doomu aadama nag bu demee ba xeeb boppam rek xeeb na lu ñu warul a xeeb ndax doom yàlla ñu bind doomu aadama la gën a sagal ci kaw suuf ñun ñëpp bu ñu dégloon waxu kilifa diine yi lu bëri luñ def ci réew mi yaakaar naa nag puso bi doon ñëw démb puso bu suñ maam yi yoroon démb dafa xaw a réer suñu maam yi day démb puso bu ñu yoroon duñ doon fas cat li di ko ñaw mu rafet lool car macha allah mais yaakaar ni ñun ñi ñëw seen ginnaaw war nañu roy ci ñoom ndax ñoom de defar ak dajale doomu adama ci lu baax ci lañ nekkoon. yéen wasaare tii ñu ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen di def ni yàlla na sax man mii de kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax. te Sénégalais yëpp bu ma sañoon bépp chaîne bu ñuy seetaan nañ leen seetaan ndax yéen ni ngeen di def rafet nañ ko lool lool loo lool lool. kaar macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom na nga tudd. yal na la yàlla fa yiw kee nag. xalil Ibrahima xalilullah gis nga li ma la doon wax léegi de yàlla Ibrahima de ku tedd la ku yàlla teral la ndax moom mi juróon Ismaïla ba mu jaree ko rendi ko ndax. tënku ci siraatal mustaqim ci ci ndigalu suñu maam ci suñu ci ci tabaaraka wa taala waaw ñun sénégalais nañ góorgóorlu lu baax a baax ku nekk nga yéene sa morom lu baax bu ko defee yërmande yàlla day gën a saawaan baawaan waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm yow mi benn ku baax nga Ibrahima Xalilullaah ziyaare naa la bu baax a baax a baax yàlla nañ yàlla taas ci sa barke kontaan nañ seen patron nag am na lu ma koy sas na góorgóorlu ci yéen ci ba baax baax a baax a baax yow mi Mbende ak Ibrahima Khalilullah mi rafet nañ seen liggéey bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am na len nag lu ma bëgg a ñaan auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waylul lil mudaffifiina allaziina izaa ktaaluu ala naasi yastawfuuna wa izaa kaaluuhum aw wazanuhum yubsiruuna alaa yahjunuuna ulaa'ika hum mabsuuna bi yawmil jaziim yawma yaquumu naasu lil aalamiin saa bismi rabbika laal loolu la ziik xalaqa fa sawwe wala ziik atara fa aade fa saalu ko saana we sanna gurgugo fala tanse illa ma sha Allah innahu ya'lamu jaara wa ma yakfi man yasudu yusre fa zakkir inna faat zikre sa yazakkaru man yakfi wa yatajannabu allazi yasla naaran kubra summa la wa zakara asma rabbi fa salle bal tuusinuna al hayat dunya wala lakiratu khayru wa aqbe inna haada la fi suufi lu la wu suufi Ibrahima Muuse Ibrahima saar bi yow laa ko jagleel waaw. abasa wa tawalle an zaaku laame wa ma idee kuyu yata jakke wa maali aadin indahu min nimatin turje labtiga wa rabbi laalee far safu yerde wadde wolel ijasaje ma waddaka rabbaka magale walla lakirat hayrul laka min lule fala sawfa yuɗika rabbaka fatarde alam yejirka yatiman fa wajataka dalen fa aade wajataka aylan fa agne fa ammal yatim fala taga har wa amma sahila fala tanhar wa amma binimata rabbika so haddisu sadakallahu l azim aca jërë ngeen jëf yaakaar naa ne ni la ñu leen ko waxee woon tey nag ni ngeen ko doon gisee ñu ngi woon ci mbedd uh, li nga xamante ni moo di ndakaaru doon waxtaanee sujet bi nga xamante ni mooy affaire u waaso affaire u géwél affaire u géer uh, gis ngeen xew-xew bi nga xam ne moo xew fële sa nooto jobaas nekk si uh, région de Thiès ñoom askan bi dégg ngeen paa li ñu si wax nee nañu loolu cosaan la boo xamante ni yàgg na fi lool ñi tamit nee nañu loolu dañ ko war a si réew mi ndax démb du tey tey du démb waakaar naa ne loolu fi mu nekk nii war nañu ko dindi si réew mi nguur gi tamit ñoom tamit war nañ cee jël seeni responsabilité balaa béy di wéy mbuus ndax yaakaar naa ne lii bu continuer mën na indi fitna ci li nga xamante ni moo di Sénégal te dañ ne Sénégal pays de la teranga Sénégal dëkku jàmm dëkku salaam Sénégal bi nga xamante ne nii ku fi ñëw ñu tëral la jox la sertie jox la yóbbal jox la loo xamante ne nii di nga ci kontaan kon bu ñu fi indi ay affaire u xeet ay affaire u kii géwél la ay affaire kii géer la ay affaire u xeebaate yooyu yëpp war nañu ko dindi ci Sénégal gi ñu nekk nii nag ñun waa Wassare chaque nii la ñu koy xel di defee terrain bi taataan li nga xamante ni askan bi ñoom lañ bëgg a wax ñu indil leen ko xaalil sama caméraam bi maaman bi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye nag le 8 bi ñu dégmal incha allah final bu mag boobu nga xamante ne nii waa ASC Deggo ñoo ngi koy amal ñu si woo ñëpp nag ASC bi nga xamante ne nii jàmm la ñu woote ak salaam ak ambiance ASC Deggo bu Sambé école le 8 janvier bi ñu dégmal incha allah ci kaw ci kanam ci lu baax ndam rek ngeen di am ay jàmbaar ngeen góorgóorlu leen